internet limametti point com dal leen ak jàmm ñu ñëw ak ci seen naafila ak ñaar fukkeelu guddi ak benn ci weeru koor ñu war ci am ñeenti rakka rakka bu ci nekk nga tari ci fatiha benn yoon te ci ixlaas ñaar fukki yoon sëriñ bi nee na ku ko def incha allah mel na ni ku moom àdduna ak li ci biiram dundalee ko ci yoon yàlla mel ni it ku jàng téere yi muy tawreet injiil saboor ak furaan te suy génn àdduna dana mel ni bés bu mu juddoo ci ñàkk bàkkaar njàngale mi nag ñu ngi ko jëlee ci téere sëñ Souhaïbou moom Serigne Touba limametti point com mu ngi leen di ñaanal kooru jàmm